asalaamaaleykum mbokk internaute daleen ak jaamu Sen Sports 221 dañuy tàmbale ak réaction wu ñaari sélectionneur yi muy bu Gambie ak bu Sénégal bu ñu xoolee nag ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am na loo jàngat ci match bi voilà dañ ciy comp ci li ci gën a fees rek bokk na ci ki nga xam ne mooy tom seen Fit bi nga xam ne mooy tàggat équipe nationale bu Gambie li mu xam ne mooy match bi ñoom maanaam ni ñu ko joué bokkul ak ni nga xam ne noonu la ñu ko waajalee woon li tax mu ne match bi kat ñoom dañu ci duggee woon ak li nga xam ne mooy benn système 4 2 3 1 muy système boo xam ne nee na ñoom liggéey nañ ci ñaari semaine te loolu lañu pare woon ngir appliquer ci match bi nga xam ne tey jii ñoom amal nañu ko waaye dañoo gise seen programme yëpp dafa yàqu te ko yàq bokk na ci bit bi nga xam ne teel nañu ko jël ñaareel bi mooy Sénégal daf leen forcer jëloo leen. ci benn système boo xam ne ñoom bokkul sax ak li nga xam ne moom lañ programmé woon ndax mu ne kat li nga xam ne moom la programmé woon mooy ci attaque bi ki nga xam ne mooy Ali Sow mooy pointé mooy kooku tentoon bopp bi waaye nag ki nga xam ne mooy Moussa Baro ak kii di Yankoba Minte su ko defee ñoom ñaar ñoo koy gunge ci attaque bi waaye daal mu ne bi mbir yi dawee daal dafa mel ni Sénégal dafa ñëw imposé jeu am ñii di waa Gambie mu ne fii li ñu mujjee gis mooy Moussa Baro ak Yankoba Minte ñëpp dañuy mujjee wàcc sax di défendre mu ne loolu du la ñoom loolu moo leen taxoon jóg loolu taxuñ leen woon jóg bëgguñu woon loolu waaye Sénégal moo leen imposé loolu maanaam ñoom du loo xam ne lu leen gënal la waaye nag li nga xam ne maanaam mooy jogante gi moo leen yóbbu ci anam googu ñu dal di koy footballé mu loolu bokk na ci li nga xam ne yàq seen match beneen mbir bi mooy dafa am ñaari joueurs yoo xamante ni élément la ñu yu am solo muy Abla Diallo ak Ibrahima Koli muy ñaari joueurs yoo xamante ni maanaam mu ne at yi bu ñu xoolee ñoo ëpp wala bokk na ci ñi ëpp lu ñuy produit ci ay but ak i paas waaye nag dafa nekk ñaari joueurs yoo xam ne ñoom ñaar ñëpp disponible ngir jouer ci match bi le loolu bokk na ci li nga xam ne it manqué na leen beneen mbir bi mooy carton rouge bi nga xam ne jël nañu ko ndax carton rouge bi bu fekkente ne nag da ko jël ci match boo xamante ni dañ laa jiitu benn bal ci dara wala nga bëgg a gañ wala nga bëgg a dabe nga bëgg a dabe su ko defee mu ne loolu dafay nekk loo xamante ne daf lay wàññi bu baax a baax rawatina nga jël ko ci match boo xam ne yaa ngi joué ak defending champions maanaam champion en titre ki nga xam ne dafa ñëw ngir défendre titre am xam ko équipe bu mag la nga joué ak moom jël carton rouge mu ne loolu itam beneen leneen la loo xam ne dafay jafe lool nga génn ci ñetteel bi mooy tàngaay bi nga xam ne maanaam am nañu ko foofu la ca Côte d'Ivoire mu ne waxtu bi ñu joué match bi dafa tàngoon lool loolu it bokk na ci li nga xam ne sonal na leen mu ne ñetti mbir yëpp ñu ko tënkee muy carton rouge bi voilà ak équipe bi ñu doon dajal nga xam ne dafa leen imposé ñetteel bi bi eh, bit bi ñu teel a jël ñeenteel bi mooy li nga xam ne mooy tàngaay bi mu ne lii daal bokk na ci li nga xam ne gàllankoor na leen donte ne Sénégal dana équipe bu baax la waaye daal gis na ne lii bokk na ci li nga xam ne gàllankoor na leen mu ne bu fekkonte woon na ñoom añu amuñu woon li nga xam ne mooy carton rouge bi mu ne seen yéene moo doon jouer match bi gérer ko ci li nga xam ne mooy 1-0 boobu nga xam ne déjà jël dañu ko bu ñu ci yemoon di jouer ak 11 mu ne kon dey mën nañoo dem sax ba ci fin temps bi ñu dal di égaliser maanaam bu ñu ne ba ci minute yu mujj ñu góorgóorlu jéem a xool naka la ñuy def ba génnee bal boobule voilà loolu Tom Saintfiet moo ko dal di gaar bu dee Aliou Cissé nag liñ mën a jàpp ci kàddoom tënk rek mooy daal jàpp na match bi nga xam ne daal def nañ ko baax na voilà te li nga xam ne bokk na ci li ñu gën a dimbale mooy bit bi nga xam ne teel nañu ko marqué ndax kat teel a marqué boobu teel a bokk na ci li nga xam ne libéré nañu waaye daal am naa mbégte bu baax a baax ci prestation joueurs yi donte ne jàngat naa ne am na ay jubbanti si say wax nee na am na ne euh, am na ay yoo xam ne xëy na war nañu koo amal xëy na ci match yi di ñëw waaye mbégte moom am ko bu baax ci match bi nga xamante ni dal nañ koy def ak prestation joueurs yi waaye bit bi ñuy teel a marqué nee na bokk na ci li ñu gën a dimbale bokk ci li mu dal di gaaral muy Lamine Camara bi nga xam ne laaj nañ ko ci ay mbiram xamal ko ne kat yow da nga bëgg voilà toujours ngay teg gone ci ginnaaw rek maanaam muy jàng ci mag ñi lan moo tax nga def choix bi dal di tànn Lamine Camara dal di ko jëloo li mu xamle mooy kat ki nga xam ne mooy Idrissa Gana Gueye xam ngeen ne nekku fi voilà xam ngeen Gana Gueye moom daa forfait ci match bi bokkul ci mu ne ko noonu mu ne nag kon occasion bi dafa présenté wu ci kanamam lii moo tax moo jëloo ko waaye gis ngeen match bi nga xam ne dal dina koy def def na match bu rëy mu ne loolu nekk nekk la loo xamante ne du biti rek la ñuy jàngat ne marqué waaye même bu ñu xoolee ci continue match bi rek voilà def na match bu baax moom kii di Lamine Camara waaye nag mu ngi wax journaliste yi ne na ko bàyyi bàyyi leen ko ci jàmm ndax kat gis naa fan yi ngeen koy def ci li nga xamante ni mooy bopp xatu kayiti xibaar yi voilà di bind ci moom di wax ci moom mu ne loolu nag laa bëgg ngeen daal di koy arrêté ngeen bàyyi gone gi dafay progresser dafay màgg il faut ngeen bàyyi ko ak jàmmam voilà loolu tam bokk na ci li nga xam ne dal na koy dànkaam foo taskatu xibaar yi moom kii di Aliou Cissé balaa ñuy bàyyi loolu ñu fàttali leen Sénégal match bi nga xam ne joué nañu ko tey jile jàngat nañ ci kayiti xibaar yi ci ne bii moo nekk quatorzième clean sheet boo xam ne am nañu ko ci 19 dernier match yi ñu joué ci kaan xam nga loolu am na solo fukki match ak juróom-ñeent yi Sénégal mujjee joué ci kaan 14 yëpp clean sheet la tey jii moo doon 14e bi kon dafay mel ni 5 19 dernier yi 5 match képp lañ ci dal di encaissé loolu nekk loo xamante ni dafay wane rek Sénégal moom xaw ma lu ñàkk mais défense moom mel na ni am nañu ko wala bokk ña ngi koy doxal bu baax a ki nga xamante ne mooy entraîneur ab défenseur la woon xëy na lii bokk na ci li gën a tax mu am xarañte woo ci wàllum défendre voilà loolu bokk na ci li nga xam ne léeg-léeg dina yàq sax matcham waaye daal loolu nekk na lu am solo gaay eh, li muy wane mooy 14 euh, clean sheet ci 19 match mooy li nga xam ne daal nañu koy am ci dernier match yi ñu joué ci CAN ñi nga xam ne nag ñoom la ñu bokkal groupe muy ñii di waa Cameroun ak Guinée ñoom joué nañu ba noppi match ba dafa nul un partout voilà Guinée nag mooy njëkk a amoon na sax li nga xamante ni xëy na mooy chance su gagné match bi waaye nag dafa am lu leen dab mooy benn carton rouge boo xam ne dal dinañu koy am ci premier mi-temps bi carton rouge boobu daal seen capitaine bi la ñu dal di dàq voilà loolu nag bokk na ci li nga xam ne wàññi ne leen Cameroun nag dal di ñëw égaliser ci li nga xam ne mooy second mi bi voilà match bi kon dañoo témboo benn ak benn ñu fàttali leen Sénégal moo war a daje ak ci match bii di ñëw comme ni ma ko waxoon ci vidéo bu njëkk bi voilà ne Guinée mooy doon deuxième waaye Cameroun mooy deuxième bi bi mooy troisième match pour Sénégal kon la 19 bi di ñëw ci la Sénégal war a joué digganteem ak Cameroun bu ñu xoolee fi mu ne nii comme ñoom dañoo nul Sénégal kon mooy jiitu ci bopp classement bi ak 3 points comme ni ngeen ko gisee noonu Guinée ak Cameroun ñoo tolloo poñ ku ci nekk ñoom benn poñ la daldi am Gambie moo nekk ci suuf 0 point moom nag matt bii di ñëw mu ngi war a am ñii di waa Guinée di matt boobu nag ñi di Cameroun doon am seen diggante Guinée ki nga xam ne moom la ñu wax Mohamed Bayo bi nga xam ne moo marqué bitu Guinée boobule moom moo nekk homme du match. Cameroun xam ngeen ne tey jii seen match bi ñu doon amal kii di André onaana bokkul sax ci li nga xamante ne mooy faydu match bi waaye nag ci kaw loolu ne nañu moom loolu daf ko naqari voilà moom mi nga xam ne ca Manchester la toogoon voilà ne daal fay xaar match bi nga xam ne ñoom war nañu ko am seen diggante ak Tottenham ni ki démb la woon match boobu nag tax moom bokkul woon sax ci wàccaay yi nga xam ne Cameroun doon nañu ko amal voilà ba démb ci guddi wala démb ci ngoon mën nañu wax biig wala ay waxtu dal la am fofu la ci Côte d'Ivoire match bi dal di tambali wala legui nak ki nga xamanteni mom lañu wax Rigobert Song dal di koy genné ci li nga xamanteni moy match bi bokol ci ci li nga xamanteni moy feuille de match bi néna ñu lool nak da ko metti mom ki nga xamanteni moy André Onana ba taxone ki Elias Diouf dem doon ko defal mom ngeen gis non mom Elias Ousseyne Diouf li nekk mbir moo xamante ni rek dafay wane ne ki nga xam ne mooy André Onana moom respecté wul benn yoon waa Cameroun dama xamul rek maanaam ñoom lan la ñu gis ci moom ba léegi moom bi nga xam ne amoon na jafe-jafe ci coupe du monde ba ñu dàqoon ko mu dal di fay jógee ne moom tekki na daal di dootul jouer pour Cameroun voilà jamono di dox ba ñu ne xalaat ko indiwaat ko ci équipe bi waaye mel na ni booba ak léegi daal taxul mu jox cër équipe ba benn yoon tey jii nag xam ngeen ne bokkul ci match bi te li ko waral ñëpp xam nañu ko tey jii bu joué woon wala mu bokk ci match bi rek danañu gis ne dëgg-dëgg Rigobertson xañ na liñ ko dénk maam euh, teg muy entraîneur boobu la di jiite Cameroun xañ na matewu ko waaye nag daf ko dal di seppi di weñ ci soow boolewul ko ci match bi nee nañ nag lu mal da ko métti nee moo tax kii di El doon ko defal noonu. gannaaw loolu dinañ wax tuuti ci transfert ki nga xamante ni nag mooy Rojo jamono bii kay di xibaar dal dañuy gont ci moom di wax na daal fi mu nii Barcelone dañu ko paree teg ci marché bi jaay ko waaye nag koppar yu toll ci quatre-vingts kayiti xibaar loolu la ñu xamle maanaam équipe yi nga xam ne dañuy wane ne dañoo bëgg kii di Rojo Barça mu ngi leen di laaj lu toll ci quatre-vingts millions d'euros voilà équipe bu mel ni Manchester United ne nañu bokk na nañu ko voilà Thomas Tuchel nag ko bokk bëgg la ki nga xam ne mooy Ronald Rojo fan yi nag xam ngeen na Bayern na sax jamono bi ñu ngi ci marché bi di làmb li nga xamante ni xëy na mooy li fi baax ngir renforcer seen équipe boobule waaye quatre-vingts millions yi daal li Barça di laaj bu ñu sukkas ndekoo ci kayiti xibaar Olympique Marseille moom signé nañu beneen latéral gauche voilà kon loolu dafay firndeel rek xëy na ki nga xamante ne mooy seen latéral boobu ñuy wax Renan Lodi nga xam ne Al Hilal dañu koy topp xëy na dafa nekk ci yoonu dem Olympique Marseille kon signé nañu beneen latéral gauche tey jile voilà moom nag ne nañu waa Suisse la 3 millions d'euros moom lañ ko dal di jëndee voilà mu ngi tudd Ulisses Garcia noonu la dal di tudd kii nag bu ñuy xool kon moo war a nekk ñetteelu joueur bu Olympique Marseille dal di signé ci janvier bi la Marseille ñu ngi ci marché bu baax a baax donte ne seen élément yu bari ñu ngi ci kan ba waaye ñu ngi renforcer ndax ñu ngi jënd rek ak di àbb jamono bii bi kii mooy ñetteelu joueur ci janvier bi ko xamante ne dèjà kon dal di nañu koy signé Karim Benzema moom ne nañu Manchester United daf ko bëgg àbb gannaaw jafe-jafe yi bu nekk ndax kat moom dafa yéex a dellu ci li nga xamante ne mooy Al Ittihad ak équipe boobu nga xam dañu war a reprendre ci li nga xam ne mooy championnat bi jamono bi nag United ne nañu bëgg nañu ko àbb pour juróom benn weer maanaam daal di yeggale li nga xam ne mooy saison bi bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi bu dee ñi di waa Arsenal moom kii di Dominique Solanke nga xamante ni moom attaquant Bournemouth la moom la ñu bëgg moom mi nga xam ne ancien joueur Liverpool la jamono bi nekk ci forme lool di defi jaloore ak ñi di waa Bournemouth nee nañu Arsenal bokk na ñi nga xam ne jamono bi dugg nañ ci xëccoo bi voilà ngir dal di koy signé bu ñu sukkande ko ci kayit xibaar yi Arsenal nag jamono bi bokk na ci li nga xam ne moo leen gën a yóbbee ñu naan dañuy wuti ab attaquant mooy xam ngeen temps am nañ jafe-jafe ngir gagné ay match ndax seen six derniers yi benn victoire képp lañ ci dal di am lii bokk na ci li gën a tax ñu bëgg yokk dooleel seen équipe boobule gannaaw bi nga xamante ne kon marché bi dal dinay ubbi voilà ñu bëgg ci profito ci janvier bile ki nga xam ne moom la ñuy wax Alexandre Isak nekk attaquant Newcastle United itam jàpp nañu ne mën na jóge ci équipe boobu la ndax Newcastle kat bu ñu amul chance li nga xamante ni mooy coow liy faral di dal yenn équipe yi voilà maanaam dal di leen teg ay duma ci wàllum fair play financier moo leen di yot tax na nag fi mu nii ngir bëcc ci loolu la voilà mën nañu jaay attaquant bu mel ni Alexandre Isak bile ngir dal di sauver seen bopp loolu it dal dinañu koy jàngat ci kayiti xibaar yi gars lii mooy defi Grand Fess kon di leen suivre Sen